ah 4 ans la ñuy patient ndekete yéen di ngeen toogaat 4 ans pour déggaat euh, euh, happy birthday yu bañ leen loolu bañ leen ko. non mais loolu bari na di. yee ma loolu duma ko nangu. loolu taxoon ma ni yàlla du def fi nit. man ne ci barke sëriñ yi ma yaakaar loolu duma ko nangu. donc cee jur du ma ko nangu. non man le 28 bu jot damay fête sama anniversaire. non y' a pas de souci muy mel ni yow sa anniversaire sama anniversaire ñaar yëpp laay fëtee ndoo <laughs> le 28 damay fëte le ma ma dàbbaliwaat la noonu la bi ma toog 4 ans di xaar loolu yàlla tere diggante 4 dafa bëri. yaa booy ce que je vais faire finalement man le 28 bi ma juddu nga judd le 29 août. dafa commencé métti ci man daal parce que yow da nga doy waar. léegi loolu na ma def. judd le premier janvier. taayi décembre. Ah, taayi nekk bébé de l'année maa ngi toog la léegi pousse amul nee na la arrière amul yow juddul bés bi nga judd mënoo ci dara le 28 dama koy féete féete le 29 ma dàbbali noonu la noonu la mbiri di demee. waaw mais nag mami wax dëgg yàlla àddina bi muy baax ba tey mas ngaa lu le dernier dimanche du mois de février voté wu. déedéet nan lañ def du tradition bi dañ koo sacrifier léegi dañu sacrifier tradition bi daal di koy reporter di ko jàppate xamaguñ kan la. man sama datu anniversaire du maa ko moom date bi moom sax bu sax. déedéet déedéet taxawal rek. ma ne. le 28 date wi du date wi du saw. date aw kese waaw rek. date wi du saw date aw kese date wi sunu dataa. loolu la bés bi le jour mu ni 2 juin article 36 point 2 journal bi ne Macky dafa renvoyer la balle aux sept sages Macky dafa jot balle bi. mu mbëkk tël dënn teg tànk kan yi jox conseil constitutionnel may ma ma yeggaleeg sama sago su ma paree naa la rappelé yow mi may woo may ma ma naa la rappelé cérémonie de remise des conclusions altine incha allah lay doon conclusion wu dialogue bi président nag li mu bëgg mooy loi amnistie te loolu nag ko dans les meilleurs délais man expression bi dégg ma bañ ko une indemnisation en vue des familles endeuillées par les manifestations dal xel ba dee mel ni ah moom date bi libération mu ne Barça wala Barsaq journal bi mu ne drame bu bees am na. ca goxu Mbàcc mhm. mu ne goxu Mbàcc wax Saint-Louis bu Sénégal mu ne parti de Joal ña am na ñetti fan pirogue bi dafa transporter ay centaines de migrants moo dem ba ci euh, géeju Salsal démb daal di fay écroué wu am na nag euh, vingt six morts sax vingt six corps pardon sans vie repêchés moom le journal Libération wax ak ay passagers yu bari yoo xamante danoo dañoo porté disparu enquête daal di ñëw ci euh, li nga xamante ne moom mooy conclusion wu dialogue national bi mu ne ça passe ou ça casse moom kay day jàll rek wala mu kale kàkk 24 heures ne ko kaay sax nag ma dellu si waat nag ci mbir yi pirogue bi nga xamante ne moom moo suux amoon lu toll ci 300 migrants mais vous vous rendez compte plus de 27 morts la tragédie continue de plus belle on n'a pas encore fini de sécher nos larmes hein? Mm. vraiment ça devient très très douloureux loolu moom nañ ciy bàyyi xel bu baax du dëgg mu ne i reçoit le rapport le 4 mars et va saisir pour avis le conseil constitutionnel critique daal di ñëw ci li nga xamante ne moom mooy Macky Sall mi nga xamante ne il n'a plus les cartes en noonu la ko journal bi gisee mu ne consigne du dialogue devant le conseil constitutionnel daal jàpp na ni cas bi nii la demee mu ne euh, journal bii di laas ñëw ne li pirogue bi dafa chavier te am na itam ñaar fukk ak ñeenti nit ñoo xamante ne ñàkk dañ seen kenn euh, fukk ñeent ñeent fukk ak juróom yi am ci ay gaañu gaañu lu le quotidien mu ne yi day dem kaña lay dem ñu ne le 2 avril mu ne waaye sa décision est irrévocable mu ne notifié na ko au conseil constitutionnel wala dina ko notifier au conseil constitutionnel concernant la fin de son mandat dès aujourd'hui à partir euh, de ce jeudi euh, ginnaaw gi li nga xamante ne moom mooy bilan bu lourd bu macabre bi nga xamante ne journal Le Regard xëyeen nu ko tey mu ne lu ëpp ñaar fukki nit ñàkk nañu seen bakken mm-hmm. ci euh, pirogue boobu nga xam ne moo écroulé wu ci Nabou lan la lu triste sa kanam gi lan la dafa metti rek ah d'accord ok les mu ne conseil des ministre Macky Sall droit dans ses manœuvres euh, le projet de loi portant amnistie adopté assemblée nationale nag la ñu war a saisir incessamment. <laughs> dialogue nag euh, lañ ca waxtaanee altine la cay jot bu paree mu yoot ko conseil constitutionnel pour avis du dëkk treize jeunes ont obtenu un non-lieu mise en liberté. et sous la menace d'un recours euh, d'un recours euh, du parquet journal Les Échos dina ko xamal le soleil mu ne euh, remise du rapport dans quatre jours waaw beneen bi lii quotidien mu ne conclusion ba conseil constitutionnel moo war a jël ay responsabilités am l'indépendant daal di dellu si ci projet de loi adopté ci mbiri amnistie général ba adopté fan ca conseil des ministres ndax après dañu ko war a yoot teg ko ca taabalu li nga xamante ne moom mooy euh, euh, assemblée nationale ca rëbës nag nabu koor Ben Talib Sow ak Ibrahima géey libéré nañu leen alhamdulilahi rabbil alamin waaye bu wax ji neex ba nu fàttee ñi nga xamante ne ñoo ñàkk seen bakken euh, ci géej gi l'info mu ne Macky démb euh, dañu ko beniiroon ko baniir Macky Sall et les médias internationaux hier béni aujourd'hui banni président mere na leen trop yéen presse étrangère. xaw ma ngeen ko. nee yéen a ngi koy waxal loo xamante ne moom waxu ko te li ngeen koy waxal du jikkoom yéen a ngi koy tooñ. dëgg dëgg. waaye mais moom li journal bi wax te mu neex. mooy xanaa tooñ gi léegi la tàmbali. président saa yu mësaan a wax ci seeni micro la daan waxe ñun ci sunu wayadi. ñu xaar ba mu wax ba pare ñu daal di dellu si waat ndànk exploité la xewoon foofa tey nu dem ba jamono di dund jamono di dox di dox di dox di dox ba yegsi fi nga xamante ne président de la république mere na leen mere na leen lool. amee ah, li ñu ko def dafa ñaaw nag man. ah amee ah, euh, ah. Ibrahima da ngay fàttaliku démb du dëgg. Ibrahima li sa fay nee dara lu ñaaw amu ci. mais bi nee na ndaxte. Mhm. wax dëgg yàlla. li lekk ci Sénégal lañu la ñu wax inventé wuñu créé wuñu tous ñebe muy but buti kon nag <laughs> ñu la doon xalabal démb kay bu ñu wëlbatikoo di la xalab tey waaw mais ni dangay fàttaliku ah nga xam ne nag wax dëgg yàlla xëy na situation bi ni moo tax hmm. mais nit dangay fàttaliku dem mami ndox hmm. euh, lan la woon raxasit ndox la woon loxo yaa ca bari rek aba <laughs> ah, ca loxoy baree kay kon la ñu war a wax ne xanaa ndox ma nekkatul ndox mu sempal kon wala dana war a noppiwaal ci loolu enfin man bref enfin c'est-à-dire que c'est moi nekku ci yoon en réalité sama yoon nekku ci je ne fais que constater l'observateur bu nii des ministres mu ne président dafa barakew mu ne si le conseil constitutionnel m'impose une date trois points de boo ko bëggee xam jëndal yéene kaay bi ñëwal nii Walf Quotidien maanu laa woote chavirement d'une pirogue de migrants près de cinquante morts à Saint-Louis ñii nag moom ku ci nekk ak ses chiffres vote de la loi d'amnistie Karim sauveur de son bourreau waaw waaw waaw Macky Sall dina saisir conseil constitutionnel opposition bi brûlé na les conclusions du dialogue mu ne waaye boo fàtte Karim sauveur de son bourreau loolu nag ah, entendra ou comprendra qui pourra réew mi mu ne projet de loi mu ne Macky yi euh, hâte lentement nank nank nank le pàccoo de bukki nag li diñ ci wax prime kan bi <laughs> prime kan bi dafa indi indignation ci ministère des sports ñu ne le pàccoo de bukki <laughs> dalu na ko may leen nga nu génn situation yi ne le témoin mu ne projet de loi adopté hier conseil des ministres de Macky mu ne bouscule les codes le président Senghor Diouf le président Wade mu ne ñoom ñëpp ils avaient accordé des amnisties après des condamnations euh, définitives donc amnistie yàgg na ci réew mi daleewul tey te doxeewul tey ginnaaw mu ne deux minutes pour lire l'essentiel ca Ndar la dem ca xew-xew ba nga xamante ne moo fa am Vox Populi yi mu ne au moins vingt quatre morts vingt et un blessés ba tey ca Ndar le bilan ba moytulee dina gën a yokk date présidentielle bi Vox Populi di ñu ci wax mu ne président dina saisir le conseil constitutionnel mm-hmm. F24 ma nga ca wet ba dafa woote mobilisation populaire pacifique pour défendre les acquis démocratiques journal ba dañu ko xamal. l'appel du fonds des victimes et rescapés des heures aux mhm. bu Jamra. mu ni. nee na nee na moom na amnistie bi nee moom il est contre amnistie il n'est pas pour il est contre amnistie bi ah. daal loo xamante ne moom d'accord na ca te bëggu ko Guy Marius Sagna it nee na Ousmane Sonko mii soxlawul loi amnistie. laaju ko tey laaju ko suba nañ dem ca làmb ja ma xool Baye Ndiaye mu ne su tourne vers Boy Niang et lu xam nga Baye Ndiaye na eh, Aziz Ndiaye na na na gën a dogale ma ko mënul nag Baye Ndiaye loolu laaj xam xëy na na gën na na na gën dogale ne Aziz Ndiaye xaw ma lan la wax ba ne Aziz Ndiaye daal moom na li may wax xamoo ko xool dëgg ju metti la way yi sax jàppatuñ ko hmm? ngaal du xam nga li may wax baay njaay ah, kii nag na Aziz Ndiaye na bu xamoo loolu kon dëkk bi metti dëkk bi jaxasoo na taasu yi sax réer nañu bon bref ñëwal nii football bi ma xool ginnaaw suñu lamb mu ne Gabon puis Bénin à Amiens probable probable adversaire des Lions en mars. Euh, record pour tëj ñëw ci datu FIFA amicaux des Lions mu ne lu Gabon et le Bénin se se xam nga fu mu nekk nii bu ma sañoon man mbiri football mbiri làmb mbiri yooyu bëgg nañ ko torop mais ñu ajandi ko daal ba ba ba ñu génn ci situation yi nekk nii wala yow jàpp ne loolu moo gën a rafet. Mm-hmm. ñu génn ci situation yi nekk nii rek. Mhm. après bu ñu ci génnee ñu delloowaat buum ca boy boy ba. ba ma yóbbu sama dat wi ca conseil constitutionnel ñu yóbbul ma ko la premier janvier ndax teg la toog yeeg yow ça commence à ba. mu sama date anniversaire. u bi du saw date. date bi sunu dataa. loolu naata yoon laa la koy wax pour nga dégg ko. man ak man ak aw man ak aw noo noo bokk noo bokk dat bi aw kay dax la anniversaire ba pare uju waal ma yat bi li ma fiti sa bos fiti ma bos ndax dat bi sunu data ndax man du ma fete sama anniversaire ah, loolu sa affaire la waaye dat bi sunu data ah, ah, man dama lay expliquer pour mu leer bonne aw séeréer laa te boo dee xool ci culture yi séeréer séeréer yi danoo wax naan lébu yi ay séeréer lañu lébu yi di wax ne. Mhm. séeréer yi ay lébu lanu. Mhm. ndax noo bokkub cosaan. <laughs> ça c'est vrai. yaa ngi dégg. Mhm. donc aw baa làkkee lébu. làkk naa li war làkk. te dama leen bëgg sax. waaw ah, yàlla def na loolu bëgg góor bëgg googu bëgg googu la waxtaanee moo tax u juddu le vingt huit man ma juddu la vingt neuf léegi nag aw sawdat sa mawdata mawdat sawdata ñeen du jàpp bàyyil ma jébbal ko conseil constitutionnel comme ça moom lu mu àttee rek le dernier mot lui revient du dëgg anga la ma jox ko date wi mu xool ndax day tànn walla en tout cas daal bébé de l'année d'accord am benn problème bu décidé